jërë ngeen jëf carte gaa ngay bëgg a leer Benno Bokk Yaakaar gañe na Dakar bi l'observateur moo ñu ko wax yéenekaay bi nañu résultat provisoire yi commission recensement wot si wala mu wax moo di Benno Bokk Yaakaar ñoo gañe département bu Dakar ak 114 Manko Taxawu Sénégal di waa kër Khalifa tegu ci ak de différence moo dox ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak Manko Taxawu Sénégal libération nañu gàcce ngalaama Amadou Ba ministre économie liste Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru la ñu ko santoon matal na ko sëkk pari réussi pour Amadou Ba libé nañu résultat provisoire yi jógee ci commission recensement de vote wax na ne Benno Bokk Yaakaar dana am ci assemblée nationale téeméeri député ak ñaar fukk ak juróom 125 député wattu bu Abdoulaye Wade topp ci ak fukki député ak ñaar manko topp ci ak juróom-ñetti député pur ñëw ak ñetti député Abdoulaye Balde am ñaari député libé nañu li doy waar ba yegg ci di reeloo ñu bari moo di ñeent fukki liste ak ñaar yi des di 42 liste yi ñoo war a séddoo ñeenti député yi des la Sénégal ni ñu coow li jeexagul ci élection législative yi 2017 yi Benno ak Manko ñoo ngi ci giitoo gu rëy ne waa Benno Bokk Yaakaar si siir nañu conseil constitutionnel ngir ñu annulé wat ga woon ca Touba ndax nee nañu dara jaaru ca yoon Déthié Fall bu parti réew mi bokkit ci Manko taxaw Sénégal nii ci journal bi duñu ci bañ dara waaye li askan wi dogal moom mu di volonté populaire bi du duñu nangu kenn di ko yàq ci journal L'As ba tey kàdduy Bamba Fall maire bu Médina mu fay wax naan ñoo ngi réccu lu tax opposition bi muy Manko ak wat àndandoo wu ñu dem ci yi ndax bu ñu tasul woon attan du ñu attan ku ñu dóor nga daanu enquête dina kay nañu ñu fara ci kujje gi mu di opposition bi jamonoy réccu ci la ñu toll moom Bamba Fall moo wax loole ma ko waxee ci kër Abdoulaye Wade gàcca fan ñi ànd ak Khalifa Sall fa la ñu daje démb ak ñi ànd ak Abdoulaye Wade Le Quotidien gis ci loole loolee loxob Abdoulaye Wade góor gi moo taalati beneen daay ci réew mi li mu bëgg moom Abdoulaye Wade moo di joxante loxo ak kii di Khalifa Sall ngir xañ jàmm Macky Sall libération nañu Abdoulaye Wade ak Khalifa Sall joxante nañu loxo ngir ànd ñàkkante kook Macky Sall les échos nañu Abdoulaye Wade ak Khalifa Sall àndandoo àndoo nañu fas yéene di yëkkateendoo ak di tegandoo gannaaw lu mat waxtu gu gaa yi démb muy ñaari camp yi camp Abdoulaye Wade ak camp Khalifa ba ñu noppee ca ndaje ma ci la maître El Hadji Amadou bu Parti démocratique Sénégal leeral li ñu tënkee ci gise ba nee na bi li ko tax a jóg moo di indil régime bi fi nekk tontul politique lu wér du ñu nangooti mukk nguur gi nekk ci réew mi di buur di bumi lu ko neex def defante bi am ci diggante Pape Samba Mboup ak Clédor Sène ma a jéggi dayoo ndax réew mi quotidien nee nañu démb ca ba ne Pape Samba Mboup dañu xool ndax wax ji ñu lay waxal yaa ko wax am déet Pape Samba Mboup daa bañ Thione Seck ak Assane Ndiaye juboo nañu yër leen xët mu njëkkal observateur Bintu Rasoul di mag ci Wally Seck moo juboole ñaari baayam yi mu di baayam Thione Seck ak baayam bu ndaw Assane Ndiaye bi tegal ñu ci ne oustaz Irandaw bu Sen TV dox na ci lu bari Thione Seck ak Assane fa ñu jaar ba juboo nañu ko doxeek na yëf yi lépp Maria Dominica bu l'observateur bind na ko ci journal bi ba sax ñoom ñaar ñoo ngi waajal ab spectacle waaye waykat bii di kuy mbokkam na nga ko jugal ndax dugg na ci loo xam ne du ko jural jàmm ndax moom Ami Collé da doon xas président Macky Sall